fi may ñëw ak yow dinaa la fa xaw a bett tuuti ndax euh, dama dégg ñu ne euh, bu bu moon a tudd mais damay tudd ndax Ousmane Sonko Ousmane Sonko dégg naa ñu ne moom ngeen ragal Ousmane Sonko moo leen tere nelaw guddi yiñ toll nii Ousmane Sonko dégg naa bu ngeen toogee sax di naan bu sam xel demee ci Ousmane Sonko da ngeen daal téyewaat pot yi ndax da ngeen koo ragal. salaamaaleykum mbokku internet yi euh, salaamaaleykum mbokki euh, Sénégal salaamaaleykum mbokk euh, diaspora bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax leen di nuyu leen di sargal waaye nag bala ñu ñëw ci suñu émission li ci dëkk bi dañ leen di wax nag dee leen partager di aimer di abonné ngeen di partager di aimer di aboné ci sunu TV sunu TV nag indi na leen tey ji ndaanaan bu mag a mag a mag nu mu tudd a Top fu mu dëkk Kumpentum ñu dalal ko fii tey jii ci sunu euh, plateau fas yéene nag tàllal ko suñu micro en tant que li mu nekk politicien waaye nee naa la Yaama Top dootoo ko defati ndax obligation namul dara moo invité nee naa leen émission li si dëkk bi na leen fekk seen kër yéen ndaanaan yi nga xamante ne nekk ci euh, politique bi yéen yi nga xam ne yéen a nekk ci wàllu politique euh, di bokk ci langue politiku gu Sénégal fekk leen seen def ak yéen émission a neex a neex duñ desal nag benn détail lu waaye doon nëbb dina feeñ ak li ci dëkk bi ba tey damay daal di tàllal sama micro sama invité bu ñaawul bi uh, di uh, politicien bu mag dëkk ba Koumpentoum ñu gën koo xam ci Yaama Top Yaama Top na def. waaw maa ngi lay fay nuyoo awa di am kontaante ci li ngeen ma uh, def seen premier numéro maa ngi ciy am kontaante bu baax di nuyu mbokki téléspectateur yëpp waa suñu TV. Euh, di am kontante ci li ngeen ñëw seet si ma tey maa ngi nuyu samay mbokk samay xarit euh, samay am di jàmm ñi ma bokkal parti bi mm, ñëpp daal maa ngi leen di nuyu. gannaaw bu mu nuyoo ba pare dañu koy daal di sargal jox ko wàccuwaayam dalalaatoo ko encore une fois ci suñu plateau bi naan ko rek euh, yaa ma topp dalal ak jàmm en tant que politicienne dëkk ba Koumpentoum ba tey dama koy joxaat sama numéro laaj ko yaa ma topp mooy kan. waaw awa ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur Yaama Top euh, mu ngi tudd Yaama Top dëkk Koumpentoum nekk responsable politique APR Koumpentoum Yaama Top mu ngi dëkk ba Koumpentoum nekk responsable politique APR ba tey rek Yaama Top euh, dañuy lay laaj yow euh, ban année nga commencé politique. wax maa ngi commencé politique depuis 2009. laa commencé dugg ci langue politique gi ndax euh, yàlla dafa dogaloon ma nekkoon ku bëgg président Macky Sall depuis mu nekk premier ministre boobu mu génnee nekk président assemblée nationale euh, loolu yëpp damay continuer di ko bëgg yàlla dogal bi mu génnee ba créer APR nag loolu moom ma dugal ci politique mais nekkuma woon avant sax politicien wala politique nekkoon ci sama xel mais daal ak nuñ ko defoon loolu moom ma metti woon ba moom poussé ci politique ba tey ni ñu defoon le président mag Sall moom moo ko métti woon ba tax moom mu dugg ci euh, li nga xam ne mooy langue politique bi yow yaa ma topp ba nga duggee ci langue politique ba léegi euh, yan yokkute nga ci gis ci sa côté yow ban yokkute nga gis ndax gis nañ tey jii ne euh, langue politique bi bëri na coow bëri na problème te it tamit bëri na naxaate te dégg naa ñu ne yéen waa APR yi ay naxaatekat yu mag ngeen loo ma ciy jox. waaw wax langue politique yi bañ ci duggee ba léegi ñi ngi sant yàlla macha allah gis nañ ci yokkute ndax première li taxoon ñu dugg ci rek euh, mooy que jàppale euh, suñu leader yàlla dogal loolu yàlla may nañ ci ndam ñi jàppale ko euh, président yi mu njëkk élection yi mu njëkk présenté wu yàlla dogal mu nekk président ñu continuer di ko jàppale ba léegi nii te gisuñu lenn luñ ci rëccu ndax lépp lu mu diggante woon ak sénégalais yi rek def na ko affaire nag du naxante kat seetal keneen. mais ñun waa APR du ñu naxaatekat parce que lépp lu ñu digante woon ak sénégalais rek def nañ ko. nee na lépp loo xam ne diggante woon nañ ko ak euh, sénégalais yi euh, ñoom waa APR def nañ ko mais sénégalais yaa ngi kaas ba léegi ndax sénégalais tey euh, foo romb tey yaam ma toog ci dëkk bi nit ñaa ngi jooy ñu ngi jooy xiif di jooy mar di jooy xaalis aussi tamit ñu ngi jooy li nga xamante ne mooy seen gouvernement bi di ngeen koy doxalee noonu noonu noonu est-ce que nekkul bopp sa bopp la wala ngeen def ne da ko bandum nekkul net da ko bandum xëy na sénégalais yi ñoom ñoo am ñenn ñenn ci sénégalais yi sax laay wax ñoo am benn gis-gis bi mais bu fekkente ne da nga tàmmoon di naxaate di am xaalis te doo liggéey tey kii nga xam ne moo fi ñëw doxal nguur dëgg euh, képp koo xam ne am nga xaalis mu tegu ci yoon liggéey bu mënti ko doon ñu saytu ko xool la ca baax la ca baaxul ñu seet nuñ ko def xëy na loolu mooy doog a métti ci ñu bari ñenn ci ñenn ñu mais président Macky saala ku ko xam-xam ne euh, liggéeykat la te ñiy liggéey rek la la la la la la àndal bëggul doxu ci daraay caaxaan bëggul caaxaan euh, xëy na bu ñuy wax ca loolu lañ war a wax. nañ wax ak caaxaankat yi ñuy wër di wax wax yoo xam ne tegul fenn mais ku ne xam na président Macky Sall mu ngi liggéey te jàmbaar la liggéeykat la. président Macky Sall mu ngi liggéey jàmbaar la te liggéeykat la ba tax na dañuy daal di euh, dugg xëy na fi nga xamante ne euh, dinaa la fa xaw a bett tuuti fi may ñëw ak yow dinaa la fa xaw a bett tuuti ndax euh, dama dégg ñu ne bu bu ma a tudd mais damay tudd ndax Ousmane Sonko Ousmane Sonko dégg naa ñu ne moom ngeen ragal Ousmane Sonko moo leen tere nelaw guddi ñu toll nii. Ousmane Sonko dégg naa bu ngeen toogee sax di naan bu sam xel demee ci Ousmane Sonko da ngeen daal téyewaat pot yi ndax da ngeen koo ragal. waaw awa loolu de xam nga ne yàqati der yi ñoo koy wax rek ñun Ousmane Sonko lañ ci lan lañ ciy ragal ban preuve la Ousmane Sonko mas a def Sénégal ban ministère la mas a jiite fii Sénégal lan la mas a de Sénégal. ñun gisuñu lenn lu Ousmane Sonko defal Sénégal. mais mais soxna si Ousmane Sonko am na am na am na xam-xam Ousmane Sonko jàng na am na xam-xam te tamit am parti boo xamante ne tey fii ci Sénégal Ousmane Sonko yéen sénégal yéen laay waxal am na ko fi Ousmane Sonko am na ay nit Ousmane Sonko nit ñu topp nañ ko te jox nañ ko bopp ñoom dañ ko ragal léegi dama bëgg ragal bi nga xamante ne yéen moom ngeen ragal Ousmane Sonko nga leeralal ma ko fi waa Sénégal gis ko waa diaspora gis ko Ousmane Sonko dégg naa moo leen tere nelaw yi tamit waa APR ya xam nañ leen waaw ñun loolu duñ ci concentrer wu sax ndax xam naa ne Ousmane Sonko su fekkente ne eh, am na parti Sénégal loolu kenn weerante wu ko parce que dox na ci maayanu Sénégal yi nax na leen bind na benn livre ñëw teg ko ci taabal gars yi gëm ko mais buñ ko nax buñ buñ nax sénégalais yi nañ ko gëm nañ gëm ne Ousmane Sonko day nax sénégalais yi buñ ko gëm parce que li tax mosuñu gis lenn lu mu apporter Sénégal kon yaakaar naa ne ginaar du topp kuy taxani mais dégg naa Koupentoum Ousmane Sonko moo moom genn wàll gi Koupentoum de yow Koupentoum bi nga dëkk dégg naa ñu ne Ousmane Sonko moo moom xaaju Koupentoum te yow nga ne responsable nga yaa ngi Koupentoum di di di dox ci euh, APR pour jàppale sa président de la République monsieur Macky Sall n'est-ce pas mais dégg na APR amul lu bëri Koupentoum nañ waxante dëgg nit ñi fii lañ dëkk ci dëkk bi nañ waxante dëgg. élection yi ñi génn de en tout cas euh, Ousmane Sonko du ko wax ndax lam fa daj mburu mësu koo daj ci taal. campagne dama sonn amul dara Ousmane Sonko man ak moom rek ñu dem ko pontu ma daaneel ko. est-ce que nekkul ne li nga ko bañ a tax ngay wax loolu tamit. est-ce que nekkul li nga ko a tax ngay wax loolu Ousmane Sonko Sénégal yéen laay waxal Ousmane Sonko dinaa la fekk sa kër ñëw def ak yow émission dama bëgg nga wax ak kii nga wax ak waa APR parce que dégg naa ñu ne yow loolu dégg naa ko loolu kenn du ko werante loolu ko weddi dégg naa moom ngeen ragal euh, bu ñu jógee ci euh, Ousmane Sonko dañuy dem ci wàllu parrainage bi euh, dégg na ñu ne aussi waa APR dañu dañu kepp ay nit quoi ñoo xam ne xëy na xaw nañu am ci ñoom ay tuuti xëy na ragal comme ku ci mel ni Bougane Gueye Bougane Gueye Bougane Gueye da ngeen koo téye mais mais mais Bougane Gueye bu ngeen ko téye tamit xam ngeen Bougane Gueye am na wàll ci Sénégal mais gis nañ ne waa APR dañ koo téye mais lu waral téye bi. waaw awa xam nga parrainage bi kenn ku nekk am na lim boo xam ne yoon moom la teg pour que nga am mën a nekk euh, candidat présidentiel képp ki nga xamante ne am nga li yoon santaane rek jàll nga. mais nag bu fekkee da nga ñëw sa lim manqué ñi may la dele nga dem wëraat sa lim manqué ah li ci des mooy nga muñ ba beneen yoon. Bougane Gueye kenn téyewu ko bu ñu soñoon day nekk candidat comme yeneen candidat yi mais nag moom xëy na moo amut parrainage bu mat comme que amul lu mat nag na dem topp ci ginnaaw ñu am lu mat rek. yow da ngay tooñ Bougane Gueye kii day tooñ Bougane Gueye yéen laay waxal kii day tooñ Bougane Gueye ba tax na moom Bougane Gueye sax danañ ko fekk këram daal def ak moom émission ndax li kii wax dañ ko ciy laajaat moom nu indi ñu ci ay firnde indi ñu ci ay leeral bu ñu ci lool damay dem doxantu. yéen waa Sénégal xam nga fan laay doxantu dama leen di fàttali nag yéen a ngi seetaan uh, sunu télé uh, bi nga xamante ne moo yëngal actuellement jamono ànd ceeg obligation mi nga xamante ne aussi namul dara namul daray dara ndax damay fekk sa ne nga doon politicien fekk la sa kër yëngal la ba nga yëngatu génne li nga xam ne moom la ñëpp doon nëbb muy feeñ waaye di leen di ñaan tamit ngeen di abonné di aimer di partager ndax am na solo torop damay ñëw ci kër gi waa kër gi nga xamante ne ñoom ñoo génnee son bu bees di ci wax wax yu ñaaw ma gis ne sénégalais aussi ñaawlu nañ seen wax yi rafetluwuñu li nga xamante ne moom la waa kër gi di def ci kanam tuuti di jee dama bëgg nga may ma son bi nga xam ne moom la waa kër gi def quoi ci le président Macky Sall ndax sénégalais yaa koy ñaawlu looy wax ci loolu. waaw awa waa kër gi li ñuy wax euh, man yëngalu ma parce que li tax yëngalu ma mooy ñoom seen làmmiñ lañ yaakaar kii wër di wax nag ak kii liggéey mënuñoo yem fayoo ñoom xëy na ñoom gës wax yu ñaaw ak xool lu ñaaw ci nit ak di sos moo nekk seen programme dañ leen bàyyi dèjà sax am na koo xam ne bokkoon na ci ñoom dabana leen yaakaar naa du ma tudd turam. non da ngay tudd turam fii dañ ne comme dañ ne li ci kër gi kon li ci kër gi nëbbul dara li ci dëkk bi tamit nëbbul dara tey télévision bi nga xamante ne seen télé la. moo leen indil émission bees tàq kon xam ngeen dara du nëbbu comme dañ ne fi lépp fi lay xewee kon lépp fi lay xew ci table bi ki nga xam ne moo nekk ci kër gi te bàyyi lañ bëgg wax ñu turam. non du ma tudd mais booy suivre télé di nga xam. kon yow da ragal kon yow kii def kii kon yow da nga ragal waa kër gi kon yow da nga ragal waa kër gi da nga ragal waa kër gi. mooy kuy woddoo làmmiñ daal saa boo noppee rafle te ñoom làmmiñ la ñuy woddoo kon nañ leen bàyyi ñoom xam ne seen làmmiñ mooy seen bureau ci la ñuy fayee ko salaire mais nag war naa rafet. est-ce que nekkul ne tamit li nga xam ne mooy dox ci réew mi te neexul leen tax ñiy wax wax li ñoom it li ñu war a wax parce que tamit dégg naa ñu ne waa APR mbir mi péncoo leen ko da ngeen koo baajoo dégg naa nag pencoowu leen da ngeen a paacoo comme nag da a paacoo ñoom it xëy na moo tax ñoom it ñu am xalaat boobu kii ko mais yow lay indi ci loolu. li may indi ci loolu mooy Sénégal nu nguur gi nu état war a doxee noonu la doxee parce que euh, lépp lu fi nekk rek président Macky Sall da ko bokk ak waa Sénégal ak waa Bennoo Bokk Yaakaar ñi liggéey Sénégal ci anam bu rafet euh, ku ne xam na Sénégal démb ak Sénégal tey du benn dëgg jib na kenn ku ci nekk. xam nga fan nga war a teg sa tànk Sénégal gu njëkk ak Sénégal gu tey ku ne xam na ne du benn yokkute am na bu baax a baax Sénégal dëgg am na fi aussi surtout dëgg gi mooy li ma gën a neex. léegi yokkute am na dëgg am na yokkute bi mooy lan ak lan. yokkute bi mooy 2012 euh, fi président Macky Sall fekkoon Sénégal ak fi ko yóbbu tey. ku ne xam na ko fu mu ko fekkoon ak fu ko yóbbu laa ba nga leeralal ma askan parce que waa Sénégal ñoo lay seetaan waa diaspora bi ñoo lay seetaan foog ñu tegal ñu foo yow en tant que politicien nga dëkk ko pentum tudd yi yaama topp Macky Sall la dégg naa recevoir na la may la billet màkk recevoir na la may na la billet màkk te yow da nga nekkoon ci list national kon en tant que responsable politique dëkk ba Koupentoum da nga ñu indi tey lu leer Sénégal fan la nekkoon ak fan la daanu si tey jii ak ban ban ban ban ban euh, yokkute la ñu le président Macky Sall indi foog nga wax ñu ko ñu xam parce que am na ñoo xamante ne dese na leen seen bopp yi foog ñu leeral ko ñu xam. Euh, président Macky Sall boo gëmee di nelaw sax làmbal sa loxo daj ci lu def mbaa nga gént ko mbaa nga yeewu gis ko. ñamal ma ci ñaar wala ñett. li ma la siy ñamal ñaar mooy euh, ku ne xam na ne sa président Macky Sall ñi nga xamante ne ñoom la jël ñi nekkoon ay ndaw. amuñu woon liggéey ñu mel ni ASP yi mu jël leen former leen jox leen ay liggéey ñuy dundal seeni njaboot loolu ku ne xam na ne yokkute la ci dëkk bi ku ne gis na bourse familia dag naan gis koo xamante ne ni bu nawet jotaan day sonn. mais bourse familiale dégg naa sarax la. mais bu dee sarax bu fekkoonte ne defoon nañ ko mënoon nañ ko def feneen mais ñu koy jox ñu ko moom ñi nga xam ne ay néew doole la ñu ngi leen ko jox ñu dundee ñook ñoog seen njaboot te sax yéen xëy na yéen a xalaat ne sarax la rek. mais dimbal la boo xamante ne ñoom wane nañ ne ci Sénégal lañ bokk il faut ñu jàppale leen ba ku nekk mën a yëg sa bopp ci Sénégal moo tax ñu tàmm ñi tànn ñi gën a new doole di leen dimbale fii ci Sénégal. dégg naa aussi ñu ne train bi nga xamante ni moom ngeen war a inauguré la 14 incha allahu rabbi dégg naa Ousmane Sonko bi nga xam ne moom ngeen ragal muy wax ne train bi courant dawalu ko essence moo koy dawal carburant loo indi ci loolu. loolu duma ci wax damay bàyyi waa Sénégal ñu tontu ko. kon yow da nga ragal Ousmane Sonko da nga war a leeral affaire bi courant moo koy doxal wala euh, carburant moo koy doxal soxna si il faut nga indi ma ci leeral en tant que politicien ngay ànd ak le président Macky di liggéeyal président Macky Sall mais il faut nga indi ma ci leeral ne euh, train nga xamante ne moom la Ousmane Sonko wax ne euh, carburant moo koy dawal Sénégal yëpp di ko lëmbee wax jooju noonu yow ma bëgg nga indi ma ci ndax courant moo koy dawal wala pétrole moo koy dawal wala essence a koy dawal. train bi courant moo koy dawal chaque dix minutes yu nekk benn dina romb. chaque dix minutes benn dina romb. waxtu fukki waxtu yu ne benn train dana romb. d'accord chaque dix minutes yu nekk benn train dina romb te courant moo koy dawal ñuy lancer sax ka jaboot yi nañu téye seen doom yi wala ñu wax leen fan la ñu war a mën a jaar parce que train bi euh, gaaw na gaawaay boo xam ne yéeme na trop. courant moo koy dawal mais pas essence wala gasoil loolu waxu yàqkat la. léegi yoo gisoo ne euh, train boobu noonu war nañ ko mënoon defaral ay souterrain yoo xam ne fa la war a daw ndax bu dee dañu dem Europe. train boobu noonu train Europe la ba tey mais bu dee dañ dellu Europe train boobu daaw du du dox ci dëkk de ci suuf souterrain lay jaar ngeen ngeen indil ñu loolu euh, tegal ñu ko ci euh, plein air comme ça dans l'air comme ça Sénégal nga xamante ne xat gi ngeen jël train boobu nga xam ne day ñoo ne fif bu taseeg yow na la fif rey la gisoo ne loolu tamit dafa ñëw da euh, le président Macky Sall aussi euh, foofu noonu def na fa erreur gisoo loolu yow. non defu ci erreur parce que jël nañ suñu matuwaay ba pare dinañ defar fu nit ñi war a jaaree mais yàkkamti bu la dugal nga jaar ci suuf parce que loo yàkkamti yàkkamti nga dem ci jàmm yegg sa kër si jàmm mu ëpp solo dinañ defar fi nga xamee nit ñi fa lañ war a jaaree balaa terrain bi di départ. dinañ defar fi nga xamante ne fa la nit ñi di war a jaare balaa train bi di départ kon Sénégal ñun ñoo ko déggandoo ba tax na bu la jaral aussi ngay jaar fi nga xamante ne mooy yoonu train bi dama leen di fàttali ngeen di abone rek euh, ci sunu euh, TV euh, di abonné di aimé di partagé ndax am na ci solo torom ndax émission bii di émission bu bees tàkk di émission li ci dëkk bi neex na neex boo xamante ne kenn ku ci nekk ngay politicien dañ la fekk sa kër ngay député mbaa ngay ministre mbaa ngay loo mënti doon de ministre conseiller directeur société foo ti nekk te nga nekk politicien rek nekk responsable rek dañ la fekk sa kër def ak yow émission bii li ci dëkk bi nga xamante ne lépp lay génne li nëbboon rek dana feeñ waaye nag dee leen aimé di partagé di nag abone surtout ma abone yi ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax mais damay ñëw ba tey sama dernière question ak sama invité bu ñaawul bi nga xamante ne moo toog fii dama koy euh, laaj élection yi di ñëw nii xam nañ ne le 3 la ñuy euh, lancer li nga xam ne moom mooy euh, pour dem campagne xalaat woo ne campagne yi dina indi problème dina indi euh, Sénégal jaxasoo dina indi yëngu-yëngu dina indi xeex tiituloo yow. no tiituma ci parce que Sénégal gi jàmm rek moo fi am jàmm rek moo fi am te président Macky Sall def fi loo xamante ne nii ay élection war naa mën a yëngu parce que yëpp jaar nañ ko ci yoon fi mu war a jaaree li ñuy wax rek mooy que. nañu yaru te ànd ak teey te xam ne Sénégal gii ñoo ko moom àddina yàggul bañ xaajoo ko kon lu ñëpp bokk nen bu ñëpp bokk kenn du ko baxal dañ koy mayonnaise ku ne mën a jël sa wàll Sénégal gii ñoo ko bokk euh, te dañuy xam ne ñun ñoo ko dama lay dagg dama lay dagg foofu ndax boo nee nen lu ñëpp bokk waruñu ko euh, mbaxal dañ ko war a mayonnaise ñëpp capp ci lekk capp googu noonu yéen cappu leen. parce que neen boobu noonu nga xamante ne moom la ñu war a may nes ñëpp capp ci lekk dafa am ñoo xam ne dañoo war a capp da leen a seppi sànni leen fële looy indi ci loolu. seppi wuñ leen sànni euh, élection yi ñëpp mënuñoo nekk président ñëpp mënuñoo nekk candidat euh, ci biir loolu la président Macky Sall am benn idée muy parrainage teg ko ngir ko xool. nan la ñuy mën a coytoo élection yi ba nga xamee dina jaar ci yoon ndax su ko deful woon candidat yi am na nu ñu bëree euh, élection yi du jaar ci yoon parce que yaakaar naa ne kon war nañ fa mën a am élection yo xam ne ñaari fan lay doon te Sénégal war naa dépasser foofu boo xoolee am na benn pays bi nga xamante ne ni chaque élection ñaari candidat lay doon xanaa kay xëy na Afrique moo avancé gul bu baax rek waaye euh, élection euh, normalement euh, lu mu gàtt gàtt su ma sañoon de man du passé dix candidat yi su sañoon du passé dix parce que ci biir dix yooyu noonu ku nekk war nga mën a xam loo mën a am. loolu moo waral parrainage bi. d'accord ba tey dama lay dagg ndax euh, yéen politiciens da ngeen a mën a waaxu nit euh, ba ba tey dafa ne euh, am na pays yoo xamante ne chaque élection ñaari nit la ñuy jël loolu États-Unis la mais doo jël États-Unis ngay boole ngay boole loo xam ne bokkut da nga ne dafa mel da nga ne tabaski ak korite ndax boo ne États-Unis da ngay jël États-Unis di ko yemal ak Sénégal gii nga xamante ne mooy loolu euh, dina ma jaaxal torop soxna si nag ah euh, élection moom normalement Sénégal war nañ mën a am nag ba ba ba ba vingt ndax bu fekkee euh, ñeme ngeen nag fi ngeen jëm am na ñoo xamante du ngeen leen del jël seppi leen tegee leen ne dama leen di fàttali yéen politiciens yi woo leen ñu xool leen ci numéro boobu di daw ci suuf ñu fekk si leen seen kër wax gi yéen loo xamante ne du deñ euh, bu ko defee rek euh, hmm? ba tey dañ koy jox euh, suñu invité bu ñaawul bi maa leen di fàttali leen ne mu ngi jógee ba Koumpentoum tudd Yaama Top ñu dalaloon ko tey ji suñu premier numéro émission li ci dëkk bi dañ koy jaadi jox nag mu daal di tàggatoo xëy na ak askanu Sénégal hmm? joxe li nga xam ne moom mooy pa waxam ba tey ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ah Yaama ñu ngi lay jox suñu micro nga wax li nga xam ne mooy sa kàddu bu mujj ak looy jox sénégalais yi waaw awa eh, li may tàggatoo daal mooy xanaa di nuyu waa Sénégal yépp eh, di wax ne rek nañ jàppale président Macky Sall ci élection yi ñu jëm ndax wax dëgg yàlla ku la jox ndékki su la diggee añ war nga koo mën a gëm ndax tey ñun de ñun monde rural ñun Euh, président fu mu fekkoon suñu dëkk bi ak fi mu ko yóbbu soree na lool ndax bu njëkkoon ay dëkk yoo xamante ne diggante mook fi route fi tali bi nekk mën na ay 15 kilomètres ba 20 kilomètres ñooñu am na ay jamono ku leen waxoon ne courant dina ñëw ci seen dëkk duñ ko gëm euh, am na ci dëkk yi nga xamante ne ku leen fëggoon ne di ngeen am ndox duñ ko gëm président Macky Sall bi mu ñëwee loolu la njëkk toog ne léegi bëggatul Sénégalais benn gis benn Sénégal muy sonn de balaa mu doon nekk président dafa dugg ci dëkk yépp xam dëkk bu nekk lan mooy jafe-jafem lan mooy coonom euh, yàlla dogal na lépp macha allah ñun de suñu dëkk ba ñu nekk ñun la fa président def ci forage ëpp na ñaar fukk courant ba ñu ngi koy installé ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ni xëy na temps bi moo ñu xoj bu nga xam ne duñ ko mën a wax mais daal ñu ngi koy sant bu baax di sant waa Sénégal yépp nag di ñaan ñi jàpp ci élection yi président Macky Sall gagné gagné bu rafet. yaa ngi def promotion président ñu leen di jaajëfal bu baax a baax lañ jox euh, seen wàccuwaay waaye nag di leen jox dig daje ci yeneen i euh, politiciens. yeneen invité ak yeneen émission ba tey rek euh, seen euh, télé ak euh, moo leen ko jox ak émission bi nga xamante ne mooy bu bees tak tak tak li ci dëkk bi politicien bi yow lay waxal xaar ma sa kër maa ngi ñëw fekk la fa def ak yow émission nga wax li nga xam ne moo ne ci sa xol sa xel sa xalaat askan bi dégg ko ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen émission seen télé léppay sotti